bëgg ah? kan la Clédor moom seen waaw. wala lii dañ ko tere mu génn wala Clédor seen laa wax. Clédor Sène. seen suñ ko woowee nga laaj ko ko directement. ok Clédor la sant day toog fi mu toog di lekk rek di naan. Clédor Sène. <laughs> Clédor Clédor Clédor la Clédor donc mun nañu xool Clédor ban buntu lay ubbi Clédor. salaamaaleykum. maaleykum salaam re salaamaaleykum re maaleykum salaam. Euh, Mamadou Lamine Diante laa bëgg nuyu. waaw jante mujjut a yegg si parce que dafa am benn euh, gàllankoor empêchement de dernière minute voilà ah, benn tiis il loolu moo tax mu a yegg si si si plateau bi euh, c'est dommage comme heure bi jot na nag te bëgguñu cof dañu koy bàyyi ba suba incha allah mais demain il sera là yàlla ma ne suba incha dina ñëw d'accord d'accord hmm. ah, laaj bi li nga ma yónnee moom nga ko bëggoon laaj <laughs> waaw loolu laa ko bëggoon laaj. d'accord parce que benn bi xibaar la benn bi informa euh, benn bi benn bi question. joxeel. waaw information bi day. Mhm. mooy euh, bëri na ñoo xam ne nekkate dañ leen retiré ci liste électorale bi. Mm. eh mbaa retiré ma. loolu moo expliqué. <laughs> Ah. Mhm. nit déposé. cinquante mille parrain. Mhm. ñu ni ko trente six mille yi. nekkuñu ci fichier bi. Boubacar Camara 5069 la ci am Boubacar Camara 5069 keneen keneen ñu ngi ko 10000 nekkul ci fichier bi. que tollooguñu ci comparé doublon yi. ok xam nga ñu njëkk a kenn mënu wax waxu doublon. waaw mhm. des des kii yu nekkul ci liste ci fichier bi. loolu nekkul ci xam nga. oui euh, Boubacar Camara. 6069. moo njëkk a mhm. mais moom dañ ko ni environ mille personnes. oui nekkul ci fichier bi parce que foofu ñoom moom mënuñu ko wax doublon. Mhm. parce que amul beneen liste bu ñu ko comparé. dañoo nekkul ci fichier bi du tout. dañoo nekkul dañ leen retiré du fichier. parce que au moment de la collecte. <laughs> man de bu ñu ma retiré sax dinañ ma bu baax li ma lay wax au mhm. moment de la collecte des signatures. Mhm. ñoom demuñu def collecte électronique. dañoo dem ay nit signal leen joxe seen carte d'identité ñu xool au verso. ñu gis ni ñii ay électeurs lañu ñu déposé ko ñu ni ñii nekkuñu ci fichier bi ñaata milliers de parrains la ñu jot a rejeté gum bu ngeen defee le total amusez bu à le faire c'est invraisemblable que toutes ces milliers de personnes là mais on va on va dépasser les les les centaines de milliers de personnes déjà ci première vérification yi ñun ñi ñu ci fichier yi kon ñi dul voté dina bari. Euh, Jalep kooku c'était l'information bi ma naroon embrayer ma question sur Mamadou Lamine Dianté qui est membre de l'ACOS et acteur politique sur pour ñoom lan la ñuy xaar pour exercer le droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier électoral comme en dispose l'article L49 du code électoral wax naa ko waxati ko wax ko ba sonn parce que l'instrument pour aller à l'élection c'est le fichier électoral mhm. maintenant le jour du vote bu kenn jaaxle bu nit ñi di wër seen centre de vote ñu naan leen seen tour new si comme 2017 mais pire parce que bii c'est à trop grande échelle te parrainage yi mu ngi koy commencer révéler donc opposition bi nañu def le total des rejets sur la base de non inscription euh, sur le fichier électoral pour xool tout ce stock qui a été retiré du fichier électoral et il est temps que ñu exercer aussi seen droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier électoral. ak ak ñooñu ñan lañu Clédor ak ñooñu ñan lañu aussi. li li information la information bu la no man kay suite laaj bi mooy ñi ñu retiré ñan lañu ak nan la ñu def ba retirer leen sur quels critères on s'est fondé pour les retirer mooy ces milliers de personnes yi ngi ni nekk ñu ci liste de parrainage te dañ leen déposé <coughs> Boubacar Camara bi njëkk déposé nee nañ ko sept mille ci li nga déposé nekk ñu ci fichier bi mu daal dem indi ñeneen oui mais laaj bi laaj bi la la véritable question mooy de quel bord sont ces personnes là est-ce que mun nañu ne ay nit yu yu hostile au pouvoir ñu farul ak nguur ñoom la ñu ciblé pour retirer leen. xam nga ñu farul ak nguur yomb nañoo ciblé. parce que le parrainage benn nit nga am droit parrain. Mhm. xam nga ci élection législative yi euh, mën nañu xam intention de vote ku nekk. Mhm. parce que boo xasee parrainé euh, ku dul ku dul Benno Bokk Yaakaar rek. Mhm. yow xam nañ opposant nga. boo amee une certaine tranche dage aussi xam nañ ni opposant potentiellement. mooy les jeunes parce que 80 pour cent des jeunes. Oui. contre le pouvoir. surtout les néo-votants. voilà le les waa le les les ñooñu euh, vraiment ça c'est du c'est du c'est du sabab lii daal war ñu taxaw. ci hmm. fichier électoral hmm. pour mën a am visibilité parce que yow yaa ngi wut ay parrain mais gisoo fichier bi. Hmm. nit ki indil na la carte d'identité nga gis ni il est réellement inscrit. mais boo demee ñu ne la il est pas inscrit kan moo ko retiré gis nañ ni Sonko bi ñu koy retiré ci liste yi wax ñu ko kenn wax ñu ko notifié wuñ ko ko. ak combien de gens on l'a fait à combien de gens on l'a fait mais naka la ku mel ni àggi bu sumaare nga xam ne élection yi passé euh, amoon na quarante mille parrains yu teg boobu ñu ngi demandé soixante mille mais ren. mu déposé cinquante et quelques milles ñu ni ko trente six mille yi baaxul trente six mille mais c'est énorme trente six mille yi nekkul ci fichier yi c'est énorme c'est énorme trente six mille am na benn candidat ci ñu njëkk ci ñu njëkk ci ñu ñu njëkk nañ ko yanaa dix mille qui sont pas dans le fichier dix mille hmm. mais quand même c'est trop loolu nag ça mérite qu'on qu'on qu'on y projette un faisceau de lumière mm-hmm. euh, pour éclairer la lanterne des Sénégalais ci fichier électoral mm. tu as eu raison d'alerter tu as eu mais oui lii daal moo doon li ma bëggoon a yóbbante moom Lamine Diack parce que je pensais qu'il était là-bas. non non yegg si wul dans le Lacoste il est acteur mm. mais demain incha demain incha allah la war a gën a ñor que man. bien sûr que keneen que quiconque. wasalaam maa ngi jégalu ci. wasalaam jërëjëf déedéet amul jégalu Clédor c'est avec beaucoup de plaisir que ñu jëlaat la euh, pour cette information là parce que sànq feuse ñu ngi doon ironiser di ne professeur Mary Teuw Niane peut-être c'est les étudiants mais mm. li Clédor wax nii war na tiital ku nekk mm. ça veut que man wala Jérôme wala yow ku nekk mun na jug dem di voter ji en 2024 mm. ñu ne ko nekkuloo ci fichier bi man en 2017 fekke naa ci cas yu bëri non daluma woon dama ci fekkee cas yu baree bari yoo xam ne mi ngi am fii ci Dakar ay nit ñu bëree bari ñëw di voter mhm. jour boobu même Doudou Ndir ñëwoon na fi ma nekkoon doon couvrir élection yi mu doon dugg ak génn mais bëri na ñoo xam ne voté wuñu parce que da ngay ñëw ñu ne la nekkuloo fi surtout nekku fi kan moo koy waral loolu ah dañ leen a seppi kan moo leen seppi nag ok loolooy laaj bi waaye waay donc xanaa euh, nag euh, des fois da ngay dégg ñu naan élection yi ay jinne dañuy voté ay xob ñooy wàcc xanaa kon xob yi loolu la <laughs> yooyu la ñuy jël di ko sànni doy na waar donc euh, li Clédor seen wax lu jar bàyyi xel la e certainement suba dinañ ci am occasion waxtaan ci ak euh, suñu gan moom Mamadou Lamine Diante bu Lacos mu waroon ñëw tey mais finalement du mujj yegg si parce que dafa am euh, ku wàññeeku ku ko jege ñu koy jaale di ko masawu. mais suba mhm. incha allah dina ñëw ñu waxtaanee lii lépp ndax fichier bi ñoom waa FIT surtout ñoo ci war a gën a taxaw et les néo-votants mooy les jeunes. ku nekk xam na ne tey seen candidat Ousmane jeunes yi dañ ko jox bopp. loolu moom lu waaye wax dëgg yàlla. gëmm-gëmm euh, daa ko gis. Eh, donc benn paa nee na nekkul jeunes yi kese la benn paa mm. du jeunes yi kese en majorité les jeunes en tout cas jox nañ bopp Ousmane Sonko léegi nag su fekkente ni dañoo ciblé ay nit yoo xam ne am nañu seen ay données parce que ñu ngi jógee ci ay élections élections législatives surtout euh, donc xam nañu ku nekk fi nga féetee xam nañu ku nekk fi ngay parrainé c'est ce que en tout cas Clédor Sène a compris loolu la ñu wax aussi mooy que euh, finalement mun nañu sukkandiku ci loolu mm-hmm. xam ñan la ñu war a moo waral effectivement ñu gis ñu baree bari dem ay milliers milliers de signatures ñu ne leen valableul parce que nekkuñu ci fichier électoral bi loolu c'est un problème et ça impacte Jérôme sur la transparence mmh. euh, de, de, de, des élections de l'élection présidentielle de ci résultat bi ci vraiment euh, bon maytuwul laa su jëmee nii mhm. euh, yàlla bu mu am ñoo ngi jëm ci crise post électorale ah. parce mhm. que am na yoo xam ne aussi c'est c'est mm-hmm. certain sénégalais yi duñ ko bàyyi mu jàll opposants yi duñ ko bàyyi mu jàll mais surtout le peuple sénégalais parce mm-hmm. que quand même munoo am il s'agit de la citoyenneté munoo am sa droit de vote mm-hmm. inscrire légalement valablement ñëw ba bisu élection ñu ne la nekkuloo ci fichier bi et maintenant quand ça se fait à grande échelle àllah ça peut poser problème donc dinañ ci ñëwaat suñu yeneen jotaay xibaar plus aussi c'est soir à 19 dinañu ci waxtaan loolu moom jaral na ma xeex ndax man dama nangoo teel a yeewu kon de takkal sa ndigg yow ni ma la gisee nii ragal seppi nañ la a a fajaru nuru woo ma kuy voté ba ñu egg ca jàmm sa greffage bi ba ñu egg ca jàmm su may dem bi du topp ay lay la la greffage bi du topp <laughs> tekki jërëjëf kon xam naa ne tey fii la ñuy yem ba suba incha allah subaay dàq nag euh, bu soobee yàlla ñu ñëw ak sunu gan ma Mamadou Lamine Jonte euh, bu su waxtaan ak moom di gërëm ñëpp ñi fi jot woote waa États-Unis waa dakaar waa Kër Massar waa Saloum bàyyiwuñ kenn ñu ngi ziar mm. ñëpp di leen bëggee gërëm toute l'équipe technique feuse gërëm la waaw ba suba incha allah. incha allah xam naa waaye bu la étudiants yi jàppee. li nga leen waxal ak professeur Mary Teuw Niane. li ma leen wax xam nañ ko li ma ah. wax Babacar Diop ñoom xam nañ ah, ko. waaw baax na dama yàgg ak ñoom de. Hmm. <laughs> li ma leen wax yëpp xam naa ko. jërëm baax na ba <laughs> yi am na solo kon ñu leen di ñaanal yéen jàmm jërëm a ngi ñëw ak ci kanam ci euh, wax sa xalaatam gu am solo boogu yendu leen ak jàmm te des ak programme mu Télé Sénégal TV